asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyu ñu jaar ñeen ñenn ñuy wax ni sëriñ du faj weeru koor wala du kii weeru koor la fekk boobu amul ñu bëri ñu la soxla ba tax na dama nañ ci Cheikh Abdoulaye Borom Kourous gi ñu gëj ko gis lool maanaam liggéey yi moo bëri woon ba tax mu raar ci écran yi tey nañu daal di koy génnewaat Cheikh Abdoulaye ñu ngi leen di bu baax a fay nañ leen sang bi aouzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata ila billah alil azim wa radiyallahu an ashaabi rasulillahi qaala rabbi israq li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di tatagal ñu ngi leen di ziar ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp ñëpp ñu ngi seetaan ci àdduna bi bitim réew ak ci biir réew mi ñu ngi nuyu murit tiijaan xaadir layen ñu ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaw dañuy démarrer rek euh, boole parce que ñu bëri itam moment yi euh, sa yaa ngi tas ni ñaa ngi xuloo ñaa ngi xeex donc pour boole leen nan nga ciy doon. man toujours dama am benn euh, dama am lu may faral di wax lu bëree bëri. di wax ne bépp koo xam ne mu ngi wuyoo wala ngay woote ne yow sëriñ nga bu yàlla deful nga mun a boole rek yow sa sëriñ dafa des parce que yitte jaam ñi mooy ñu boole leen ndax yàlla moo gën a bëgg boole ndax bokk na ci ay turam jameon yaa jameon ci tur yàlla yi la bokk boole dafa nekk lu am solo chaque jour nag dañuy gis diggante yu yàqu ñu nekk ay puso nekk ci diggante yi di ñaw rek loolu mooy suñu métier képp kuñ gis nga am koo bëgganteel am ko ci dugal loxoom ñu ñaan yàlla yàlla boole leen képp koo xam ne am na jafe-jafe ak patron wala lu jëm ci wàllu liggéeyam wala ci ñi muy jiite wala ñëpp yàlla may nañu mën nañ leen a boole képp kuñ boole daal boole yàlla may nañu ci gaaw nañ ci xam nañ ci yan bunt lañ koy defee dañuy boole nag doomu aadama yi léeg nga dem ba gis ci àll ñaari garab yoo xam ne dañoo dem ba da laxasoo loolu dañ ciy def secret boole fàttatul kitaab dañ ci boole doomu aadama yu bëri samadu li ñuy wax janoo ku jàng xulwa la waxat xam nga samadu mooy lan janoo yàlla may nañu ci ñu ci boole doomu aadama yi secret yu bëree bari daal yàlla may nañu ko ci wàllu boole voilà loolu am na njëriñ waaye itam boo boolee nit ki itam da ngay gis ku nekk bitim réew wala nekk ci même réew këy tëkku maanaam këy bu nekk foofu pour ñëw wala këy bu mhm. jóge fii pour dem mhm. donc euh, loolu la lu jëm ci wàllu këyit yàlla def na dañ cee pare yàlla dimbale nañu bés bu nekk nit ñi ñu ngi photo seen ay këyit bu teggi mee woon sax ci ecran bi dinañ leen wan doomu aadama yu bëri yoo xam ne ni tey laaj nañ ñu wala jëflante nañoo ñun lu jëm ci wàllu këyit yàlla may ñu ci ndam moo xam kayit gu mën a doon moo xam këyit goo mënanti di lijjanti bu fekkee fëgg nga suñ buntu fëgg nga buntu jàmbu xeebu bi yàlla dina la dimbalee dina la kàttanal balaa moo mat ñeent fukki guddi kayit yooyu di nga ci teg sa loxo moo xam séjour la moo xam lu mu mën a doon moodu moodu yi ñu ngi may dégg ñu ci bitim réew ñu ci bëri yàlla dimbale nañ ci sama buntu la leen yàlla dimbalee ba tey ñu am këyit ba tey ñu mën a ñibbisi fekkee li nga xam ne xewoon na ci seen ginnaaw parce que ñu bëri dangay gis ñu toog ci biti seen waajur génn àdduna seen lépp génn àdduna moo tax man su ma nit wooyee rek wax ma waxu kayit loolu noonu dama koy def sama yitte balaa moo mat ñeent fukki guddi ci kàttanu yàlla danga may woowaat ne ma sang bi sëriñ bi teg naa sama loxo ci kayit yooyu. kaaraange nag nan kaaraange doomu aadama dafa war a mucc damay wax lu bëree bëri. nit ñi nañ góor góorlu ñu aar seen bopp ndax dañu nekk ci jamono ju doy dangay da bëre ñu daanu sa kaw soo bërewul tamit ñu daanu sa kaw nit ki na góorlu waxuñ nag nga def kenn lu bon waaye aaral sa bopp ba nga xam ne ku dal sa kaw dina yëg ne am na ci kaw lu mu dal doomu aadama daal dafay góor góorgóorlu ci kaaraange kaaraange damay wax ne dañ koy faral di def ci juróom-ñaari garabu xay yoo xam ne dañoo sax ci juróom-ñaari armeel yu wuute dañuy jël ci xay yooyu noonu def ko sunguf loolu noonu tey boo ko sangoo jëfandikoo ko di nga mucc ba pencam yàlla kenn du mun ci yow lu bëri léeléeg dinañu def kaaraange ci teen boo xam ne teen bu të maanaam teen boo xam ne dañ ko gas ba sonn munuñ fexe ba am ci ndox xeer yooyu dinañ ko jël def ci kaaraange musal ci doomu aadama dinañuy aar ci lu bëree bëri dinañu aar ci alquran dinañ aar ci sunguf dinañ aar ci lu jëm ci wàllu reen doomu aadama daal ku jublu suñ bunt dinañ la aar ba képp koo xam ne liggéey na la wala mu def la lu bon yow di nga taxaw ci bàmmeelam dinga teew ci dajam. macha ñaan yàlla. ñaan fii lañ ko fekk. ndax dañu juddu fekk fi hadiis yu wér yonent bi sallallahu alayhi moo taxaw ne. duwaaw wasilaaw muminuun donc jullit ngànnaayam mooy ñaan yàlla ñaan yàlla nag amut lu munul def sang bu mag bi Mawlana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahim nee na nit day dem ba tëdd ci lalu sukkuraat ñu ñaanal ko yàlla mu jóg dund lu ëpp la mu waroon dundaat te day dem ba tëdd ci lalu sukuraat ñu ñaanal ko yàlla ñaan yàlla mun na soppi lu ne ñaan yàlla mun na tere nit gàtt fan ñaan yàlla mun na la jox loo xam ne waroo ko woon a am sax ñu ñaanal la yàlla nga teg ci sa loxo doomu daal bu bàyyee ñaan yàlla mooy wedd na yàlla te yàlla képp ku ko ñaanul da nga koo noppal nañ ñaan yàlla te bàyyi caaxaan yu bari yi nekk nekk ci télé bi di wane yenn yoo xam ne amul benn teggiin nit ñi di daanu di def lu nekk nga naan ay jinne la ay nàngam te yàlla xam na ne yow may wax loolu gisoo jinne nañ góorgóorlu. foofu noonu gëm naa ne ci dañuy maanaam ñi nga xam ni euh, dañuy kii ci jinne yi dinañ dinaa tuutul nag. dinaa tuutul ci kanam dinaa tuutul koo xam moom nee na sax ba ne day def luuma jinne mu jaaxal ma ñu dem ci ku ku ñaan yàlla tam sarax. Mm. ne sarax dafay guddal fan. sarax dafay. faar bàkkaar sarax dina tax musiba goo xam ne dafa waroon a ñëw ci yow nga def sarax mu dëñ ci yow doomu aadama yi nag damay faral di wax képp ku xam sa sarax doo dem ci sëriñ boo xamee sa sarax da nga koy def rek li nga bëgg aajo yooyu yëpp yàlla fajal la ko nga am ko ni nga ko bëggee waaye nag doomu aadama yi fonkuñ sarax xamuñ sarax xamuñ yan bunt lañ mun a jaar ba saraxe waaye nag sarax yàlla xamal nañu ci lu bari képp ku ñu laaj danañ la wax sarax yi nga war a def yoo xam ne soo ko defee sa kullu ajo sa jafe-jafe yépp di nga gis ne daf lay wan ginnaaw insha allah feebar bu sonal góor la euh, euh, feebar la bu doy waar te feebar bi dafa commencé di gagner terrain maanaam feebar bi dafa nekk loo xam ne ñim dal dafa bëri dangay gis xale bu ndaw du am ñeent fukki at waaye kàttanam jeex na li koy sabab tamit buñ temps bi mayoon ñu dugg ci waaye li koy sabab tamit bëri na diabète bokk na ci stress bokk na ci hémorroïde bokk na ci ak mbir yu bëree bëree bari yoo xam ne lu ci mel ni masturbation li tubaab bi wax masturbation bokk na ci loo xam ne tamit day faral di lor jaam yàlla yu bëree bari loolu nag feebar bi kum dal rek yaakaar naa sa kër dina tas waaye nag yàlla may nañu ci képp kuñ ci jëflanteel ci taxawaay balaa moo maj ñetti minute dinañ la jox loo xam ne ni soo ko jëfandikoo di nga yëg ci sa yaram loo xam ne nii toog nga ay ati at yëgoo ko wàllu ngóor moom loolu noonu mbir mu pare la kuñ ci jëflanteel du mat ay waxtu yàlla may la li ngay sàkko suñ la ko joxee ci saa si nga am yëg-yëg fi nga taxaw waaye nag comme traitement la dañuy continuer ak yow rek su matee une semaine su la neexee nga takk ñeenti jabar. jeex euh, kon su la neexee nga takk ñeenti jabar boobu waaye bu fekkee itam mën ngaa takk waaye sëy bi. Uh-huh. Euh, du neexul. Uh-huh. donc ci sëy. Uh-huh. mooy doon wax lan nga ci lan nga uh, ci wàllu sëy nag dafay gën di law ndax sëy yu bëri duñ ko seet suñ maam yi balaa ñu daan dugg ci sëy dañ koy seet xool sëy bi. wërsëg yi ànd na ndax biddiw yi ànd na loolu yëpp dañ ko doon xool mais jamono ji da ngay të sa mbokk kii te ay mbokkam rek ngeen ànd ngeen sëy buñ dawalee ñaari fan ñetti fan dégg na divorce am na fekk nag wërsëg yi àndut bidiw yi àndut moo tax wàllu sëy daal yàlla may nañu ci tamit képp ku ñëw dinañ la wax su sëy bi baaxee dinañ la baax na su baaxul dinañ la wax ne baaxul su laajee sarax dinañ la ne laaj na sarax moo tax jigéen ñu taxaw bëgg borom kër nañ ñëw njëflante balaa moo mat weer ci kàttanu yàlla dinañ dégg alxayri faru rab dañ koy faj mm-hmm. dinañ ko faj ci reenu siddéem am na tegtal am na nuñ koy uutee am na nuñ koy joxee nit ki mu takk ko su ko takkee lépp loo xam ne nekk na ci yaramam mel ni faru rab daf koy bàyyi dañ koy gëlëmal ba nga xam ne moog rab bi dootuñ gisante. Euh, dañuy mhm. euh, nañ mhm. def. na ko gisee. nañ bàyyi caaxaan yi ñu delloowaat suñ bopp ci yàlla. ndax lépp loo gis ku lu mën a la yaa bés dina ñëw ñu taxaw ci suñ kanamu borom lépp loo xam ne defoon nañ ko ci jamono bés dina ñëw di ko nettali nañ bàyyi caaxaan yi nañ bàyyi tappale yi nañ ñaanal nit ñi yàlla jinne doomu aadama moo ko gën a foor na Cerno dama koy seetaan ci tele bi rek di ko gis waaye li may wax muy Cerno Mule ak ku mën a doon xulil àq walaw kaana muran nañ bàyyi tappale yi nañ delloo suñ bopp ci yàlla xam na ñun ay jullit lañ nañ ñaan yàlla nañ jëfandikoo tur yàlla nañ jëfandikoo li ñu yàlla jox ñaanal ci jaam yi moo gën ñu bàyyi tappale yi nañ bàyyi caaxaan yi rey viol yeeg rey yi bëri trop trop trop am daawoo toog di ko waxtaanee di ko wax dina bëri fii wala nga dëgg la loolu mënul ñàkk ci jamono li ko dalee ci jamono yu yàgg yi ba léegi mu ngi fi am waaye jamono ji dafa gën a doy waar lu tax mu doy waar ndax média dafa am bu njëkk ba média amutoon lu bari daan na xew kenn du ko yëg waaye jamono yi média yi moo tax lépp looy def rek nit mu ngi jël téléphone am di filme di seet nu mu ko jàllalee waaye nag lu jëm ci wàllu viol yi doonul loo xam ne dañ koy rafetlu waaye tamit bari na doomu yoo xam ne léeg mbir moomu sax dina leen dal fekk demeewuñ ak seen sago ndax doomu aadama yi dañ leen di xëptal ñuy xaru dañ leen di xëptal ñuy rey nit dañ leen di xëptal ñuy def lu ne moo tax dañuy dellusiwaat ci kaaraange rek gépp ku ar sa bopp yàlla mun na la musal ci yenn jëf-jëf yu ñaaw yi kon nañ góor góorlu ñu taxaw ci suñ bopp ci wàllu kaaraange. Euh, euh, ñu bëri ngi génn oustaz yaa ngi génn ñenn ah, gisee loolu. loolu man nangu naa ci ndax man su ma ko weddee damay wedd chariatu ndax bu ñu ne ay jullit lañ nañu tegu ci loi lislaam li yàlla santaane ku rey nit ñu ray la loolu mooy li nga xam ne moom lañ war a jëfandikoo ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey nit ñu ray la bés buñ ko jëfandikoo dinañ gis ne jafe-jafe yépp dinañu wan ginnaaw ndax dañoo bàyyi yoonu yàlla jàpp ci beneen yoon moo tax jafe-jafe yi tant que teguwuñ ci chariatul islaam yi dañu continuer di nekk ci ay jafe-jafe